etutu achapichapi anyaminyami achukuchuku achakachaka eh, atorojo morojo amorojo torojo cinquième quatrième troisième war a ma def ko am dem lycée fu yokkaat samay fen di fa jaay jikko saar xaale bu tey ma jël fin dana jot ñu ne ma waa bis dañ laa jël j'avais pas de souci ndax cour privé du tëj en tout cas duma la fayalaat ndax da nga tàmbalee léegi. Ah, maa ngi mais Mati. temps yi entreprise bi xet bu doy moo fi xëy ñoom. xaw ma lan la nag ma mbaxal la xaw ma daxil xaw ma kaldu bon. doy la war daal vraiment. xam naa voisin yi la. xam nga ñoom bu ñuy toog du ñu tëj seen buntu balcon yi et tout xam naa loolu la rek waaw. Ah, kon du kii bi demagul ba léegi. courrier bi noo demagul woon. waaw ah, mais na dem nag aussi. Ah. jël benn temps bi. Mm-hmm. voilà euh, kii ma la doon wax problème mu miskin yi la. Mhm. génneel ma benn nombre de cinquante. de cinquante bu ko defee ngeen distribué ko. d' accord. voilà ensuite. Mhm. tey rendez-vous amul. mais parce que dama am rendez-vous léegi ak ministre bi ah. Mhm. voilà. Ah, waaw da ngeen fexe courrier bi dem na. nombre de cinquante personnes. waaw. d' accord bon journée. bonne journée. au <laughs> lii de kaay lay yéen <laughs> xaaral waa tante ma ne waa dama bëggoon yónnee la sa suukar koor waaw loolu de laa bëggoon xanaa ba mu amee xale bu ma mën a yónni rek ma yónnee la sa suukar koor ah loolu du dara tànt ñoo ko bokk <laughs> ñoo ko bokk waa kan sax lii de kañ la lii moom li moom kañ la duma ko sax bàyyi mu yàqu allo waaw xam nga li ma bëgg yónnee ma papi waaw xale ku mën a ñëw rek bu ñëw ma yónnee sa sukkaru koor d'accord waaw ak kan sax waaw mat yi waaw man la ma ne mun naa la waaw ci loolu mais yaa ngi def bon baax saa waaye walaay jàppale nga def waaye jot nga ci sa mbaxal ak a saf déedéet am na xam ne saf tey am sàpp la def wax ndaw si bawul Dakar bawul dara waaye mat ma ma ma lool waaw DG moom xanaa dafa joxe sukkaru koor ren DG waaw ah joxe na sukkaru koor kay joxe na ko joxe na ko waaw man de jotaguma sama waar ah maman yow da nga war a am sukkaru koor ah dama nekk nag fii di fi liggéey ah DG bu ma joxe la sukkaru koor. Hmm. miskin yaa tax sukkaru koor bi miskin yee ko yëkkati personnel bi yëkkatiwu ko dox noo doo miskin yaa sant yàlla. man nag miskin laa ndax nag yëkk moom du jéggi gan di fi romb keneen pour la ah man daal DG sant ma loolu li ma sant daal laay def. jox na ma ah. sukkaru kooram bu doy xaalis bu doy. ne ma naa ko séddale miskin jaamu yàlla yi nga xam dañoo néew doole lii la ma sant du ma ko jox. kii la am na yow comme waroo waa baax na comme yow da ngeen fay nekk di ko jox miskin ba xam yéen mën ngeen ko jox ñu miskin mënu romb. su ko ko dem miskin a tax.